seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali yéenekaay yi ak waaju tabaski tey ji yéenekaay bi ne direct info ne boo sàggadul kilifa kër yi fi mu nekk nii lot lool ba xar mi sax moo leen mujj a sacrifié da jooy sacrifié xar de wante xar mi ci boppam moo leen di sacrifié ndax jot ci yombul benn yoon yéen kat bi quotidien ak a seer xar dafa seer lool te tabaski gu métti métti la borom kër yi nar dundu dund ren ji waaye lu gëna a doy waar nag mooy ca wàllu kaw ga yéenekaay bi di Dakar Time ne sàmmkat yeeg baykat yi fi mu nekk nii ñoom nga xam ne ñoom lañ dañ yaakaar am xar ñoom sax duñu am xar ndax jur gaa ngay dee rek yokku ci nag beneen mbir tawul tawaanul te nag loolu tiital na ñëpp. yéenekaay bii du l'observateur ne rawatina baykat yi ak sàmmkat yi sonn nañ de na leen bàyyi xel ba tax yéenekaay bi la témoin ne lii yëpp boo ci réew mi est-ce que Barça Barça mën na fee dañ dina jafe lool lu toll ci cinquante sénégalais dàq na leen Espagne cent rapatrié na leen Maroc moom benn gaal gu daan dem fii si Soumbédioune lañ ko jàpp cent dix candidats lañu gis ci biir gaal googule ñu dem ci ajuk màkk ndax nag yéen kay bi l'observateur mi ngi ñuy waxal ne ah suñu ujaa ci nekk foofu solo nañ lool rawatina cëmm naam ñoom lekk gi ñuy lekk dara baaxu ci ñam jabet nag ah, tiital nañ leen lool délégation générale bi nag benn lay la am nee na ñuy togg ñoo deful lu leen waar des ba tëjee ak yéenekaay bi di l'observateur da dañoo jàpp benn soxna ca aéroport AIBD da doon def trafic mais ñeenti nit la bëggoon yóbbu ci Brésil jaay leen foofu foofule. ñu wax ci wàllu luubal alal ak kan Kabiru Mbodj escroquerie yéenekaay bi di laas ne moo tax ñu jàpp ko na ko ràpp ci biir kasob Espagne 34 millions de francs CFA la yoral kenn ma nga ca commissariat police sant ñoo ci Île Balavarese ca Espagne. mag yi kenn yëgu ko mu taal atom jaar ci illaa Touba yéen a kaay Le Quotidien ne da doon xool ndax liggéey bi yemb na noppi na ba pare liggéey bi kay jeex na loolu ñu yéen bi Le Quotidien ba mu demee ca Touba nag yéen bi di mi ngi xamal ne xalif bi dalal na ko waxtaan na lu yàgg lool yéen bi di enquête na yi dafay muus muus lu rek yëg na ne opposition bi dem na Touba muy layoo illaa Touba dem Touba xam nañ lépp. fii waaye ay nitam dafa mel ni léegi ñu ngi sóor second tour de yéen kaay bi di laas na Youssou Diallo wax na nee na même sax bu ñu demee second tour Macky Sall am na chance pour am ñaareelu mandat yéen kaay bi la témoin na man li ma jaaxal moo di candidat yi bëri na de fi mu nekk nii rek ñu ngi ci fanweeri candidat te pareeguñ te li ma leer ba leer mooy bu ñu demee ci njambatal ñu néew ñooy bokk ci mbir mi am na ñoo xam ne dañuy sóob rek duñ benn candidat ni ñuy waxtaanee nguur gi ba juboo rek def surenchère la ñuy def fu coté Quotidien ne Abdou Fall nekk ni daal ma ngay xam ne ne moom du transhumant transhumant en dette na Lo ci biir yéen kay bi la tribune ne li am ba des moo di dem leen rek waaye seen làmmiñ war ngeen ko téye wax wax ju ñaaw met xam la rek njabootam jaaduwul Walf Quotidien di laajte ne waaw démission yu bëri yem ci groupe Futurs Médias ah day na waar dafa mel ni dañoo bëgg a tas boobu boobule te koy def nag du kenn lu dul nguur gi te koppar yu baree bari danaa dugg ci média bi nañ ci teey yenn a kabli Sud na ne Maître Moussa Sarr ma ngay gàgganti Amnesty ne naam seen rapport bi am na lu baree bari dëgg la waaye am na tamit ay erreur Kofi Annan génn àddina réew mi ne tax na Cheikh Tidiane Gadio génn ci noppi gi mu noppi woon daf ko témoignage bu rafet yenekaay bii de soleil nag ku dox lool ci tànku jàmm la woon nag ba mu nekkee secrétaire général bu ONU jërë ngeen jëf ci dum ñoon de ci soo jaan seen si Dakar Matin point